bi ci des ñu yóbbante la ñaan nitam ñi fi toog ak ñi fi toogul nañu dolli dal ci réew dolli déggoo ci réew mi te yàq baaxul ñoo bokk réew mi te Sénégal lii lii gouverneur lii amul ci benn réew bu ñu ko ñemee organiser ci mbedd bi lii amul su amee boo jëlee ne ma am na lii benn réew conférence gars yi war naan maa ngi conférence France ak Amérique ak Belgique yëpp ay saal la waaye ndaan da fëri fëri jii lu toll nii daje kenn tiitul ay bal tiitoo bomb tiitoo taal ànd ak tranquillité Sénégal yi gën a amul bu ñu ko yàq mais seetal lii lii ñii yéeg mbedd yeeg benn oto jàng xool ñii ñu bolal rek fees nañ ah, di wax lu rafet secret yam ci dem ci dëju Iran di ko seedeel lu baax te noonam ngoon bi muy dund ngeen góorgóor danaa waxit bi ci des xaw ma pétrole la xaw ma ay jaru xulu ah nit ñi ne ko nii rek bi ñu am ak pétrole doy muy si. Cheikh Al Hadji Malick ci suuf si. Cheikh Amary Ndack Seck mi ci suuf si. maam Al Hadji Ahmadou Bamba Ndiéguène mi ci suuf si. maam Cheikh Omarul Fouti Tall. maam Abdoulaye Niass. maam Cheikh Bou Kounta ñooñuy sunu jamaa ñooy sunu pétrole ñooy sunu or. ñooy leen di soxla ma laaj la bàmmeel buy dundal ñuy dund fu ngeen ko gis bu gàmmu Tiwaawan jotee ay saakoy xaalis màggal Tuuba ay saakoy xaalis ci mag mu yàlla gërëm rek moo tax ñu sotti ko ci bàmmeelam ñu duñ ko ay pétrole bi dañuy gaspillé wuute machine luy ay nit ñi ñu kërti kërti ñuy tëdd rek nit ñi sotti buñ paree sotti saako ñoo ñuy suñu essence ñooy suñu pétrole ñooy suñu gaz. gouverneur ma yëbalante ci président Macky nekkoon na jàppale xale yi. waxal ñu président Macky mu jàppale xar yi dolli leen jàppale boo yoree ndaw ci réew ndaw la lën ko yéene sa doole yeggu ca mu góorgóorlu bu ut as moto yor ci yaayam ak baayam nañ ko organiser waaye buñ ko nangu nañ dimbale xale yi borom jakarta yi nañ leen waaye xale yii nit yoon wi santaane def leen bu wut leen casque bopp toj baaw ci moto yi danoo gaaw sànq la borom wax ne daa yoroon ay bor yaayam am problème waaye ci tàkku saalu tey gi la ko fay ndax amoon Ibrahima Samba mi fi defe na daama ngi fii la benn waay tuubee ba kii dem ndax yéen fekk ma man toog mu ne ma damaa bëgg a tuub ma ne daan saako demal sangu mu ne ma waa ji dama jàngal sangu di jàng naa ko bu yàgg ci yow ma ne ko man naa sangu ci Iran laa ko jàngee ci bokkul ci diine yi mu ne ma maa sang sama bopp ma di ko wax baa di tuub yi mu gën ma koo mokkal ci tànk bi ko wéeti nag ne yonent bi néew xamoo daal kon gouverneur yëppante xale yaa ngoo ñu jàppale ci lu mu ne nit du def lu